booy gënuñu ma parcours gënuñu ma ñeme lu metti coow lee bari rek mais parfois xam nga nit moom xam nga di nga doxee ak taalibe ba xam nga ku jug. xam nga am nu mu doxee wala ku jug am nu mu waxee non duñ ma ñeme de. no <laughs> no non duñ ma ñeme mukk. sox nag man baatu ragal bi ngay wax nii man xaw na ma jaaxal. non non duñ ma ñeme parce que yow koo gënul palmarès mu gën la palmarès ñaari yoon bu ñu tegee ay victoire moo la ëppale ay victoire buñ tegee seeni combat moo la ëpp ay combat kenn munul kenn billaahi mbër mujj jël sa avance jaar gos nga jaar droite jàppal ni ba keroog ngeen di mujj ci géew mun na laa daan waaw mais gars yi dañuy toog seen biir gaale yaakaar ni dangay ngay dégg koy analyser sax naan diwoo mun diw bu ko jàppee du doy loolu amatul ci làmb de léegi làmb ku jël combat sa bakkan nga ciy teg amatul lu yomb comprendre nga nañ ñëw ñu bëre.